su réew mi di ko dépenser nii di hmm. voyage hmm. mais léegi nag sama xel dal na tuuti ci voyage parce que dem na ba gis président yi ni ñuy amee seen dëgërlaay ak ni hmm. ñuy taxawee ak ni ñuy mate gis na ci yeneen dëkk yi président yi fulla yi ñuy am ak personnalité mu commencé ko dugg nag xam naa looloo tax la dernière fois mu jël see responsabilité pour mën a situer wàllam ci nomination yi ba pare taxaw nag dëggal boppam je pense que tey il commence à comprendre mm. man bi ma gisee démarche xam naa ne kuy jàng la et puis ku ku ku kuy nangu la aussi te ku mën a comprendre la mm. mm-hmm. boo gisee sax ba ci accoutrement yëpp mu ngi koy changer ndànk-ndànk mm. que tey tukki yi muy tukki mu ngi koy am lu mu koy jàngal exactement mais feneen fu ma mën a wàccee ci aide à la presse bi Ousmane Sonko dafa war a xam ni daf fi fekk budget bu ñu votee ba pare budget boobu ñu voté am loo xamante ni représentant peuple bi ñoo ko voté pour muy dem ci presse bi tey moom su fekkee joxu ko presse bi détournement d'objectif la def uh-huh. na wax tey xaalis boobu waroon dem ñu jàppale ko la vraie presse laa wax de hmm. waxuma nag ñi nga xamante ni dañ fi toog nekk fi ngir moom mu leen di fay ñi nga xam ne dañ koy defal promotion na jël ci poosam fay ko wala ci cotisation yi mu fay ko hmm. mais pas ci budget Sénégal bi nga xam ni dañ ko voté pour dimbali ak jàppale ñi nga xam ne dañuy liggéey ci presse bi hmm. parce que mission bi presse mës a am ci Sénégal mooy li ñuy wax rek ci populisme hmm. Sénégal ñëpp a nawoon presse bi fi am hmm. Hmm. ñëpp na woon journalisme bi fi xew ci Sénégal mooy wax dëgg mooy taxaw dañu demoon ba journaliste bi benn instant ñoo fi nekkoon société civile foo toogee gis waa société civile toog bañ a wax presse bi dañuy taxaw dëggal seen bopp wax li nga xamante ni mooy dëgg bi tey mu bëgg a yàq loolu mooy li Amidou kan wax gis nga Amidou Kane bu mu waxee ci populisme ah. Amidou Kane dama toog di di di jàngaat di liiraat ci populisme mm. Mm. lépp loo xam ni baax na fi da koy rajaxe mm. pour mën a indi moom doxalinam lépp loo xam ni kilifa la da koy dindi gis nga ñoom général ti da leen di utiliser pour ñuy def loo xam ne nit ñi dañ leen di xeeb xoolal avocat yi tey képp ku nekkoon avocat Ousmane sonk nit ñi xeeb nañ la keroog bi mu génnee arena Hmm. ni dama ni leen yéen a jàng yéen a am xam-xam yéen ay juriste yéen yéen a mokkal droit yéen a am ay cabinet hmm. yéen liggéey ci luy atte mais nag dem leen toog xamoo leen hmm. man Ousmane Sonko man maa xam li tax ma xam mooy damay def ay stratégie te waxoon naa leen saa loolu déggee stratégie mooy kàcc yi mooy fen yi mooy jaxase yi sama stratégie mooy dinaa sos dinaa tëdd tëdd lu hôpital mais Ousmane Sonko lan la ñu wanul wan nañu yaramam war nañu ay poqataanam mm-hmm. wan nañu biiram war nañu perfusion boo xamante ne sampuwul ci dara wax na mm-hmm. fi ni dañ ko empoisonné que yor na résultat a yore ya mais résultat yooyu ñu koy xaar boobu ba tey ñëwul mm-hmm. alors que nit normal soo amee ay conseil juridique ay avocat yu lay dañ leen di déglu ñu teg la ci yoon mais jël pool d' avocat dajale leen ci ay whatsapp déjà yow nee danga da dajale ay avocat ci ay whatsapp wax leen ni leen gis naa ni boobu ba yéeg yéen a ngi jéem mais da ngeen tële man mi nga xam ne maay xut bu zamaan man Ousmane Sonko mi nga xamante ne maa xam lu kenn xamul mën lu kenn mënul ba hmm. am ñenn ñi entre guillemets di la wooy yàlla bu ndaw man maay indi pexe ci ay kàcc ndax man lépp lu àndul a kàcc duma ci mën a dox hmm. bàyyi leen ma ma indi samay pexe wax ni dañ ma empoisonné bàyyi leen ma dem tëddi suma assistance gële ni dañ may perfusé te kenn perfusé wu la kooku mooy Ousmane Sonko tey hmm, kon kooku tey bu doxalee lii mu doxal am na ñu muy bett mais nandite yi damay wax chaque jour sama yenn xarit yi su ma gisee ñenn ñi ànd ma ne nandite yi ñi yeewuñu suma assistance fa la ñuy jouer théâtre yi théâtre yi waaw mm-hmm. réduire xam nga suma assistance am na jamono yoo xam foofu ngay dem amuloo foog nga yaatal voilà am na loo xam ne am na jamono yoo xam ni non da nga fàtte suma assistance covid la commencé nit ñi fay nañ ko après. waaw waaw waaw mais ci Covid bi la commencé. est xam nga Covid bi Covid bi. docteur Niang Diouf maa ngi li may wax ci kanamu Diouf Sarr laa jël seede. bi mu taxawee ma seetaan ko seen TV muy wax. Mhm. dama jël sama téléphone woo Ablaye Diouf saar mhm. ma ne ko lenn rek nga ma def mooy nga porte plainte kii. Mhm. lépp loo def te porté ko plainte yaa ngi yàq sa sa yoon. Ablaye Diouf Sarr porté ko plainte mu daw res. parce que ñii da dem ak ñoom jusqu'au bout. beaucoup. Hmm. Hmm. Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ak ñi koy théâtre ak ñi koy kàccal du ñu wax rek. nga duma leen tontu comme ni hmm. Amadou Ba di def naan damay jël auteur non non non. ñi kenn jël ñi da ngay wàcc ba toll fi ñu tollu nga. defante ko ak ñoom parce que bu ñuy def duñ ci am kersa. bu ñuy def duñ ci xool suñu borom. bu ñuy def duñ ci xool ëllëg. moo tax da ngay toppan Ousmane Sonko lépp lu mu fi wax te amul preuve dañ ko vaar te dañ ko sanctionné moo tax tey la 17. Sénégalais yi wara a jël sen ay responsabilité pour indi opposition bi ñu am majorité à l'Assemblée hmm. pour ñu yeewi suñu institution yi ñu le président de la République xam nga ñu ngi wax ni Ousmane Sonko mais lim bëgg moy suy de démissionner en tant que président de l'Assemblée moom mu dem nek président hmm. indiwaat ñu fay élection mais rien ne xamante ñu ngi bëgg émergence mënuñu ko am est-ce que faut nañ organiser élection encore hmm. Si vous avez la majorité de Ousmane Sonko mu êtes président de l'Assemblée il va faire démissionner Diomaye pour dem le président de la République 90 jours après ñu fait une élection au Sénégal foog qu'on fi mu élection. amuñu loo xamante dañ koy def ci ay déjà élection yi c'était pas prévu indi nañ ko kon tey suñu budget moo antanu loolu. 40 milliards. Mhm. Euh, ah mhm. ñaar ñaari laaj la lay laaj. Mhm. ba ñett bu bi